asalaamaaleykum waa àdduna ñu ngi leen di nuyu ku ci nekk sa tur ak sa sant di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen bu baax a baax di nuyu kilifa diine ak kilifa aada yi di ñaanal ñëpp jàmm di ñaanal ñi nga xamante ne ñoo tëdd ci lalu hôpital yi yal na seen bopp ba ñu delluwaat ci seen njaboot ñi nga xamante ne ñoom la caabi féeti ginnaaw yal na leen yàlla may liberté ci barke Seydina Mouhamed di ziyaara ñëpp bàyyiwuñu kenn koo xamante ne yaa ngi nekk si biir réew mi kilifa diine yi kilifa aada ak képp koo xamante ne yaa ngi yore kaaraange réew mi di soltani rek ñu ngi lay fekk fa nga nekk ziyaar la ñaanal la jàmm ndax seen jàmm mooy suñu jàmm kon yal na leen yàlla may jàmm ci kàttanu yàlla di ñaanal sage-femme yi ak médecin yi nga xamante ne ñoo nekk ci hôpital yi yor malade ndax ñoom tamit kenn du ñoom ci mimu réew ndax bu du woon ak ñoom rek làmbay day daal di ñaaw ñu ngi ziyaare wu ñu kenn di ziyaare képp kilifa boo xam ne yaa ngi nekk fii ci diwaanu Louga di la ñaanal jàmm di ñaan yal la yàlla defal jàmm kilifa yi nga nañu yàlla taas ci seen barke te oyofal suuf ci seen kaw di ñaanal ñëpp di ñaanal sama yaay di ñaanal sama papa yàlla na leen fi yàlla yàggal bàyyi leen fi ci barke Seydina Mouhamed yàlla defal jàmm ñëpp di ziyaare sama dëkku maam njëra wàq ñuy def gàmm ginnaaw suba la kaat di fa invité ñëpp di wax ñëpp nañ ñëw njëra wàq la kaat di ñaanal ñëpp jàmm ndeyaa maa ngi lay ziyaare bu baax a baax di ziyaare Babacar moom mi nga xam ne moo nekk ci réseau bi tonton Ngaari maa lay nuyu di la ziyaare di la ñaanal jàmm di la wax salaamaaleykum waaleykum salaam Euh, Mame Marème ñu ngi lay nuyu di nuyu àdduna bi yëpp góor ak jigéen mag ak ndaw waaye sunu nuyoo ñu ci jiital suñu kilifa diine yi di ñaan yàlla mooy leen jàmm <clears throat> may leen wér ak njaboot bu leen déggal euh, nuyu kilifa yi di ko ci président de la république membre gouvernement bi yëpp opposition bi ak société civile bi ñëpp ñu leen di ziar. nuyu askan bi yëpp fàttewuñu kenn ak fu nit mën a ne. di jullit wala ngay chrétien wala foo mën a doon bokk ñu ngi lay ziar bu baax a baax ndax ñoo bokk àddina bi eh, maam Marème ñu ngi lay nuyu di la ziar nuyu Ndeye Abba eh, nuyu Ndeye Ka waaye di nuyu Babacar mi réalisé émission bi ak le directeur général bu kër gi ca kaw ba ci suuf ñoom ñëpp ñu ngi lay nuyu ak képp kuy suivre émission bi rek ñu ngi ñaan yàlla fa nga ne jàmm rek wuutu la fa nekk fa ak yow ci bi barke alxuraan. siyaar nañ ñëpp faaru ko daari naw sax merci beaucoup tonton Ngari ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax di am mbégte ak kontaan di teew ak yow fii nga xamante ne mooy leeral TV leeral point net émission aada ak cosaan ñu koy def dimanche bu jot 15h30 ndeyaa nuyu naa la ziar la ñaanal la jàmm. maamare maa ngi delloo ziar asalaamaaleykum wa rahmatulah taalaa wa barakaatu. ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonent bi sant suñu ñaari waajur. ñi ngi ziar kilifa diine yi kilifa aada yi di ziar ñu ci hôpital bi di leen ñaanal yàlla suñu borom jële leen fa ba ñu dellu ci seen njaboot di ñaanal aussi ñi ci prison yi tàng na metti na ñi leen di ñaanal aussi yàlla suñu borom jële leen fa ba ñu delluwaat seen njaboot ñu bañ a def lu leen fay delloowaat ñuy ziar ñëpp di la ziar maam Marème di ziar tonton Ngaari di amaat mbégte contentement partagé moom plateau bi may dem ba Thiès di sama tata boobu Mbayang Fall madame Diop chéri Tafa maa ngi lay ziar moom tata de émission bi. di aussi sama sœur bu nekk Daaru Moussi faatiment moom tamit du tardé émission bi benn yoon maa ngi ziar ñëpp. merci beaucoup Ndeye xam naa ne réew yi dara waralu ko lu dul Babacar mi nga xam ne mu ngi si studio bi waaye terewul mu ngi ci boolu fataaya bi xam nga moom am njóobeen la il faut ma yoole ko mu ngi tiim fataayaam tiim boisson ak xaalam mu ngi ci machine bi mais terewul gémmiñ gaa ngi neex ndax Jóob la sant ñu ngi koy ziar bu baax moom tamit di ko ñaanal jàmm may ziare bu baax ki nga xam ne mooy ndeyka sama xarit sama soppee sama jarbaat borom saabu yu baax yu gën yooyu xale bu yaru bi yàlla sa jàmm yàgg. maa ngi lay ñaanal bu baax a baax a baax doomu jale di ñaanal sa papa fa mu tëdd yal na ko yàlla xaare àjjana te oyofal suuf si kaw muy papa biram di papa ju baax papa ju gën papa ju riche koo xamante ne xam nga lu ñuy jooy ci moom dem bi mu dem rek mais car macha allah ku gën la ku baax a baax a baax yal na yàlla xaare ko àjjana oyofal suuf si kawam njabootam ju mu fi bàyyi yàlla def ci loxo ci barke Seydina Mouhamed tey na tonton Ngari suñu tem mooy ndamu tey tonton Ngari ñu doon wax tey li nga xamante ne mooy ndamu tey lan mooy ndamu tonton Ngari thème bu am solo boobu ngir indi ñuy jaajëfal Ndeya ànd koog Matar Sakho ñu ci élément indi euh, macha allah loolu am na solo ñu xalaat thème bu am solo muy ndamu ndamu kenn rek ku yeyoo kenn muy rabbi samaawaati wal ard yàlla suñu borom. kese ndax moom man lu kenn mënu xam lu kenn xamul sañ lu kenn sañu kooko sañ ndamu bu dul moom kenn sañu. adduna bi nag bari na lool ñuy ndamu damay wax toujours même mot nga koo xam ni yaakaar na ne sans lui les choses ne marcheront pas moom bul moom mbir kenn du dox kooku nag euh, ndeysaan ñaare ñooñu bu leen dalee dañuy am gàllankoor dañu ne war a ñaanal mais daal boo boo boo bëggee te du gudd loolu ci kàddu yi mooy yàlla rek ko yeyoo kese parce que mooy wax si jaajatul si jaajaa bisu yob ca yamal xiyam te kenn du revendiquer fii nag boo taxoon bàkkoot kenn na la may ma manit maa la ëpp nangam mais moom rek ko sañ parce que moo bind nit kon nit warut a bàkku nit dañ koy conditionné nit dañ koy dimbali nit dañ koy taxaw nit mënul dara moom laa wax keroog ci émission bi bala nga xam nit matul dara nga am doom nga am soxna ba doom ji gën a àdduna doon liir nga dikk xool liir bi bul jël exemple fenn neel nii laa meloon rek andi woo tubay andi woo mbubb gisoo karaw doo nga fiir di jooy kese ba mën a sol kilot ba mën a soli dàll ba mën a daw kon boo taxawee ni fëgg sa dënn nga ñàkk xalaat rekk ñàkk xam-xam ndax mënooloo bari mhm. koy dee warta bàkku mhm. yàlla deewul tukkiwul nelawul mhm. amul jabar amul doom bugg ko kon kooko sañ naa bàkku ku dul kooko boo bàkkoo wacc nga ko kon bàkku yaa ngi da indi thème bu am solo boo xam ni dana dana yee ñu bari ñoo xam ne ñu ngi koy def chaque jour luñ joxe bàkku luñ mbax bàkku fu ñu dem bàkku fekk du ñoom day bis ñu lara waaju la gaañu na démb de wala gaañu na ci ngoon mhm. kuy bàkku doo gaañu mhm. kon bàkku yàlla rek macha allah tonton Ngaare yàlla rek moo ko yeyoo ba tax na doomu aadama bu si nekk war ngaa bàyyi sa xel bu baax a baax ndax am na ñoo xamante ne ñu ngi mënoon di doxal seen bopp di waxal seen bopp tey ñu ngi toog benn place kaasu ndox sax daf leen di të terewul yow mi nga xam ne yaa nekk ak ñoom del bàyyi sa xel foo tollu ngay xam ne àdduna du dara ñett moo fi nekk liir bi nit ki néew bi kon hmm. foo toll del bàyyi sa xel di xam ne yow doo dara lu dul yàlla hmm. neen la mais da ngay gis sama classe gi fëgg seen dënd bu du woon ak man man nangam maa am nangam ku ci am dara doo sant yàlla de looy wax sama liggéeyu ndey la ana waay ana yàlla ana yàlla suñu borom moom mi la may yaay yow nga toog mën a fàtte kon ba nañu bàyyi di bàkku di ndamu di wax ne man maa def nangam wala bu du woon ak man nangam ndey yaa tey boo ñu doon wax li nga xam te ne mooy bàkku tey lan nga ñu ci mën a leeral li ma ci mën a leeral rek mooy maam Marème damay ñëw ci li tonton Ngaari wax rek nee na yàlla suñu boroom rek moo yeyoo baab kooku rek moo mën a bàkku moom moom moom bàkku moom moom moom bàkku moom la war mais à yàlla suñu borom bàkk warul kenn parce que nit mënalul boppam dara fii lu fi waay am yàlla moo la ko may lu fi yaay ñàkk yàlla moo moo la ko xañ te nit loo mën tey ëllëg di nga ko tële kon bàkku amul sens nit bu mënaloon boppam dara comme ni ko tonton Ngaari waxee kon du dee du feebar du gaañu du am ndog-ndog du am jafe-jafe àdduna kon loolu boo ko xoolee rek wala xam ni bàkk warul kenn ku dul yàlla mi nga xamante ni moo ñu sàkk indi fi kooku rek moo war a bàkku mm-hmm. parce que lu ñu mën moo ñu ko mënal lu ñu xam moo ñu ko xamal moom ku ñu sàkk indi fi rek jeexal na wax mm-hmm. mais fekkee yow nit kese nga sàkk mënaloo nit dara sàkkoo nit bindoo nit sàkkoo defoo defoo dara mm-hmm. kon kooku lan ngay bàkku loo am mayoo ko sa bopp aussi yàlla suñu borom moo la ko may ki ñàkk aussi ñàkk faydaam wala ñàkk jaamu yàlla taxul yàlla xañ ko ku am yàlla moo la may ku ñàkk aussi yàlla moo moo la xañ mais ku nitewul rek mooy bàkku pour man ku ko gàtt xel rek mooy bàkku mais ku xam am xel dëgg xam yàlla xam xam sa trajet fi nga jaar liir bi comme ni nga ko waxee néew bi ak nit ki moo fi am mm-hmm. kon yaakaar naa ni waru bàkku warul kenn ma mareem dëgg la macha allah bàkku warul kenn ba tax na fu ñu na nañuy bàyyi suñu xel bu baax a baax a baax di xam ne ñun ay nit kese lañu. ay nit dong lañ du ñu dara tey soo doxoon li nga xam ne moo gën a tuuti muy xaaxaam bu ndaw la tontoo ngaari mhm. tey bu duggoon sa yére. Mhm. fekk dindi woo ko doo am jàmm. Mhm. tey soo tëddoon sa lal bii nii sa bopp di metti fekk ne bopp bi seddul doo ñelaw. doo xam lan la danga naan man lii mbaa jàmm la. kon lan moo fi jar di yenn yi lan moo fi jar di fëgg sa fi jar di jaay na nii laa uh-huh. toll mais am na nit ñoo xam ne uh-huh. pour ñoom tey bu asamaan si doon wàcc bu ñu defee nii seen loxo mu taxaw bàyyiwaat leen seen xel gis nga alal ku mu tax a bàkko wala système wala lu mu xamante ne ni lu la gana si la moo xam alal la moo xam kër la moo xam oto la moo xam succès bu la mën a dab ba tax uh-huh. ngay fëgg sa dënn di bàkko jàppal ne li bay ñam bay waddi waddi gileem ñam na lu ko téeméeri junni yoon te mu ngi ne dégg tege kon bàyyiwaat leen seen bu baax a baax tonton Ngari da ngay gis jamono bi fi mu toll nii da ngay dajeeg nit mu tooñ la ba tooñar bi la mm. ne la demal fu la neex demal fu la saf xoolal bu ñu demee fu nekk maa la fay bàyyi ndax man li ma xam mm-hmm. autorité yi mm-hmm. fee bu ñu fa demee ma bàyyi la fa sama papa wala dama fay liggéey wala sama jabara fa wala sama rakk est-ce que loolu as gor war na kaa def moroomu gorom loolu as gor day war waaye bu paree de sa gàcceem euh, fu ñu dem ma bàyyi la fa danañ dem ba bërëb boo xam ne doo fa ko doo ko fa bàyyi kenn daan toll bis boo xam daan la bàyyi barab boo doo xam doo yóbbaale kenn faw nit ñi bàyyi ci xel gis nga bis bu ñu demee ba boof te wal ba kenn ku ne pollet ak sa sa laxasaay ñëppay maase fa yàlla moom doo ngay tax si jaay si jaay ja ama ah, kay sa sin yi dur yu moom doo ngay mag buur yaag président yaag ku mën a wax ñu mbëkk laa mbër yaag kenn koy liim liimi xep doo xool sax ca kaw kenn rek ay bàkku li muy njëkk laaj mooy ana ña doon tëtalu ci àdduna ak a bàkku ñëpp ni xelaw ku ne di xool sa morom. fii boo génne doo xam ne koo xam ni boo tasee moom wàññi ko. koo xam ni bu waxee benn baat baa mu téléphone doo faram sa kër. waaye bu nu demee foofu nga xam ni kenn du ci dara. kon dafa jar waajal. Eh, gis nga rahmatullahi alayhi alaaji Jili Mbay radiyallahu taala anhu yàlla ko yàlla fay. il est il était l'homme le plus riche du Sénégal ay jamono. da ngay génn fii ci kër yaay Ndey Diop mu jëm euh, pale mhm. soo day boot ay loxoom di dox nga taseek moom jàmput lay sol mhm. ñi ko xam ngay daw àkk ko buñ ko dawee àkk ko mu nuyu ñu ñëpp ñu si joot mhm. li mu njëkk mooy léemu suñu bopp ku ne mu laaj na ne looy jàng ne ko alxuraan ban saar nga wax ñëpp ñëpp mu ne góorgóorlu te jàng alxuraan te ngeen fonk seen way julli bootaat ay loxoom continue kenn du ni maa ma sa daa meññal bu moom sol amul moom mënu mënu daa mel mënu ko sol mhm. wayafte mhm. ak xam ni xam-xama ëppoon alalam mhm. xam ni nag lii tey ñëw xamoon dana ñëw ñu bari nag foog nañ fekk feebaruñu dundee ñaata nit fi xamul lu toll nit fi tëkku nit bu ngoonee moo ànd ci sa borom yàlla rek mooy reye bàkku Sénégal nag waxuma yenn réew yi mais Sénégal la ëppee surtout sunu way politique yi kenn ku ci nekk yaakaar nga ni yow su ma dégg ku naan su ngeen ma fal nit ñi tàqali koog coono man ree la may def. <laughs> yow da ngaa sonn di yow sa bopp da ngaa sonn. <laughs> ba ngaa bëgg falu mu tëdd tij. <laughs> kooku mën ngaa lijjanti gaañ. bu ma faloo métti jeex liggéey am. te xëyoo yow. say doom xëyunu sa jabar xëyunu da ngay xëy di xoole rek xëy na sa làmmiñ nga yor bëgg noo canaliser moo tax nit ñu war a teey ci man a ji mhm. du ci kenn bala nga ko xam nga ci milliardaire bu faatu ñu dugal ko ci morgo di ko sang pare sang ko génn ko tëral ko ci ak jaat mu ñu làcc baaraam mënu ko yëkkati mhm. te ay milliards la yor mhm. ay oto ma gaata ci biti mhm. du ci war benn te buñ ko yóbbu sëgi ci ab 4x4 wala d 200 bu xomaat lañ koy teg ñeneen dugg ci wit wit ya jiitu ci armeel yi kon mënoo bu kenn bàkku lu waaye nee nañ ko sant sa borom mu leen dayaa wax sànq lu waaye am yàlla la ko yàlla xañu kenn waaye noo toll suñu boroom la sax mu tege la loo nii kullu nafsin zaa'iqatul mawt signature boobu point final amul kenn ku fi ne da ngay dégg bu ñu tàgg ni sax nit ah mooy xalaat kañ la gaañu o oh, bu feebar fajuwul ah pour ñoom ko fajuwul da war a dee ñaata nit a yóbbu nit hôpital yow mu ko yóbbu dee fa malaat ba mu jiwér ànd ca rob ba nit ñi ba tey dañoo war a suppi ko waat bàyyi seen xel mi bàkku baaxul ku joxe sa dépense su kër bu leen ma fontoo mhm. maa fi joxe dépense mhm. ñàkk fayda weesul loolu boo leen joxul sax daan wañ mhm. ndax di nga deelu yàgg nuy añ añ ba gën a neex sax faf nag terrasse yeeg immeuble yi paa yi dañ ko fekkee kon bàkku bi jëru ko kenn ku nekk doy loolu yàlla sa borom xam ni nit nga boo suñu koo ci wan ak bay sax nga xool sa bopp rek loolu rek doy na exemple ku ñàkk fayda ngay doon foofu rek <laughs> nee naa ko ñàkk fay da ngay doon fa ba tax na daal doy na waar hmm. damay daal di wax rek ni dañ ne nit ki li mu gënee moroomam buy sangu du ko sum kon tonton Ngari waxam boobu foofu lay demaat ñun ñëpp benn lañ te bu neexoon yàlla tey ku ci nekk mu xaawee sa sutura mais da lay suturaal warmaal la mais jamono bi ñu toll xaawante sutura bi waxante lu ñaaw li fëgg sa dënn bi maa def nangam maa def sàngam bi mel ne toq su bënn saañ ba réer li nga wax léegi rek dafa am signature boo xam ne par la force ku ko bañ a signé mooy bul judd muy ku la nax si saa yi xatal mawti hmm. ku judduwul doo ko signé hmm. mais ku nekk ci kaw suuf di nga ko def nee nga léegi alaaj jili ba yal na yàlla yokk leeram te hmm. taas ñu ci barkeem su daan dajeeg yow lu mu lay wax taril ma ban saaru alxuraan fan nga yem mais tey jii jamono bii ku ci yow lu mu la wax looy liggéey sa waaye mbaa am nga kër mbaa am nga oto waaw ban classe ngay def est ce que nanga man de sama passeport man de sama visa bi lan la àdduna bi lan la nu mu demee nii tonton yi xoolal nga nekk ci néeg yow kase ni mu ragaloo waxatuma laa nga nekk ci kër yow kese waxatuma laa dëkk ak àdduna bi tonton Ngari wax nga léegi lu doy waar mu ne bus bu yàlla di tukkal àdduna tonton Ngari àjjuma bu jot man sama fit bi lay tëf tëfi ndax damaa dégg ñu ne àjjuma ci ngoon la yàlla di lalli ba sangam googu yàlla nañu fekk ci lu baax hmm. yàlla ñu fekk ci ñu bëgg di Seydina Muhammad hmm. yàlla ñu fekk ci ñu yéenante suñuy moroom jàmm te bëggante te bañ a bàkku bañ a ndamu ndax ndamu ak bàkku defe naa dafa nekk yoon boo xam ne ay xaaxaam la ak ay xal ku ci jaar rek di nga jàdd sa yoon Babacar bu fekkente ne jàpp na nga indi ñu benn élément ñu dellusiwaat ci studio bi. Euh, tey nag ñu nekkaat sunu émission pencum aada cosaan comme nuñ ko fareelee di def euh, dimanche bu jot bu ñetti waxtu jotee ñu fas yéene waxtaanee tey thème bu am solo muy ndamu lan nga ñu mën a wax ci lan mooy ndamu tonton Ngiraan. waaw ndamu de moom yaatu na wax dëgg fa yàlla te ndamu moom ñu koy def moom dañoo dese xam yàlla ndax euh, lépp lu waay di am ba di ko ndamoo. yaakaar naa ne da ngaa desee gëm yàlla ndax boo gëmee yàlla xam ne yàlla moo la jox moo xañ sa sa moroom te loo bari le bari le dinga le di nga romb loo moomul loo ñàkk ñàkk ñàkk di nga romb koo xam ne yaa ko tane kon euh, fi mu toll nii yàlla bu la mayee nga di ko damoo wala nga koy xeebe sab nawle a ah, gëmoo yàlla gëmoo yàlla te gis nga Firawna kartan gi ko yàlla mayoon demoon na ba bay wax wal xiyaasu billahi ana rabbuka ahla demoon na bay bay bay ne mooy borom bi ndam loolu nag ci la ko yàlla booleeg yonent yàlla Muusa mu yar ko ci këram ba màgg ci këram waaye mu suuxal ko ci géej gi kon ndax mu baaxul képp koy def fi na mujjoon rek fa ngay mujj wala fu ko raw ngay mujj waaw. waa kàddu am na solo lool yaakaar daal lii moom uh, amuñu dara luñ ciy teg yàlla dañuy ñaan yàlla suñu borom may ñu dégg ak topp rek amuñu luñ ciy teg kàddu yi am na solo lool ñu ngi lay jaajëfal bu baax tonton Ngiraan. waa jërëjëf waay di leen sant di leen gërëm mm-hmm. ndax bi fii du li ngay wax si njàlbeen gi rek fii du ngeen fi gan. ndax tey mooy ñaareel bi yoon ngeen fii ñëw fa tabaarakallaahu yal na yàgg yal na yàgg ah, am na solo lool ah, tele bi yal na dem ba nekk ay tele yal na ngeen dem ba gis ci seen bopp bu baax a baax a baax yàlla la fa leen cat ak seytaane barkeel seen liggéey lu ci jub ci yàlla la lu ci dëng ci suñu gàtt xam-xam la ak suñu manki ñu ngi leen di jaajëfal fa tabaarakallaa jërëjëf. waaw ah, jërëjëf Ndeya yow mi nga xamante ne yaa ñu jëlali ji woon élément yow ak Matar ñu ngi koy ziar bu baax tonton Matar suñu xarit suñu soppee suñu nijaay ñu ngi koy ñaanal jàmm bu baax a baax a baax a baax tonton tey boo ñu mënee leeral ci li nga xamante ne moom la suñu tonton boobu wax moom tamit ñu koy jaajëfal bu baax a baax ak marché bi nga xamante ne moom la nekk ñu jaajëfal ñëpp di leen ñaanal xéewal gu yaatu tey lan nga ñu mën a wax ci li mu wax. waaw wax ju am solo dafa yaatu ndamu dafa yaatu du ku am ndam rek ndamoo ko man nga koo ndamoo nag parce que dafa laaj déggin mais pas ñun fii Sénégal lañ koy ndamoo wax nga ko sànq ci ndorte bi ku amul xaalis ni yàlla la ah, ah waaye moom day wax ne yàlla ko teg ñàkk rek moom ne yàllaa ko teg feebar rek moom da yàlla nàngam mm-hmm. mais ku yàlla newu fa mm-hmm. yaayam ko liggéey sañ dee ko ñaanal mm-hmm. loolu mooy Sénégal ah loolu nag neexul yàlla sans borom. wax dëgg yàlla ndax moo sàkk jaamam ñi kenn ko ne mu sàkkal la bis ak yoon am am wa ak nekkin wa. yàlla dafa tracé ñëpp seen trajectoire. mais senegal ku dee yàlla ku feebar yàlla. ku ñàkk yàlla ku xiif yàlla. ku nu fose yàlla. ku ñaan baat yàlla. ku sa ngoro tas yàlla. mais loolu lépp bu réglé woo sëñ bi ak yaay booy. loolay problème bi. parce que yàlla moo joxe wërsëg. ba zàqu yàlla moo ko moom kenn nit moomu te ñaare da gis koo xam dafa jaar ci ñàkk ba yàlla may ko maamu. Mhm. mais li muy njëkk def mooy fëgg dënn. Mhm. ngay wax ak nit mu nag ma moytu boo ma xamoon nag ma moytu. Mhm. caaxaan la nit rek la. du weesu lu dul nit. kon yaa ngi tëkku nit. teg ko ci doole nga ko teg parfois. soo ma xamoon nangam parce que mooy li nga wax sànq am na branlon xëy na mën na la dugal ci kaso sans problème xëy na mën na la dóorlu sans problème wala sax mën na laa raylu yooyu ko teg ci kattan gi ko yàlla jox moom loolu lay utiliser pour sonal nit mais bis ñëw kattanam jeex bidon ndox bi sax mënut ko yëkkati ndax ñàkk doole booy dox dañ koy téye te bis bu ne gis exemple bi ci c'est-à-dire bis bu ne nu gis loola chaque jour bu nu yeewu li njëkk ñaana mooy gudd fa chaque jour ñu gis ko gudd fan koo xam mënatul boppam dara boo ko tegaloon xar mu siiw ko lépp mënu caa lekk benn mos mhm. amuli bëñ mhm. mbaa mënu ko sàqami mhm. mbaa du neex ci moom te pourtant jamono bee passé kattan la yore bay dóore kattan la yore ci bépp boor kattan day jeex dëgg la kon nit li ñu war fa laay jeexale mooy ñun ñëpp ñu nekk prison su ma dégg ñu naan prisonnier ak détenu kuy dund ci kaw suuf prisonnier nga détenu nga kaw suuf kuy dund parce que dañoo tooñ fa yàlla ne woon àjjana di noos ak kii kat kii jari di sabote mun nu bu leen laal sama garab gii nu dëgg suñu bopp laal ko mu dàq nu indi nu fii ci àdduna bi prison nag dafa am ñu ne première classe am na ñu ne ci couloir bi am àdduna ñoo ne ci néegu ñax ñi kaw terrasse ñi mais ku ci ne am nga lu la métti bis bu ne nga am lu la métti ci nit sa doom mbaa sa jabar mbaa sa jëkkër mbaa mbaa mbaa mbaa chaque jour te mënoo ko saafara bis bu ne nga gis loo xam ni bii bëgg naa ko mënuma ko am na xar la kon ñun ñëpp ci prison la ne il faut nag nu rectifier wu ba am nag certificat de bonne conduite mooy nag jubal bàyyi bàkku bàyyi ndamu bàyyi fépp bàyyi bu ñu delloo fa yàlla xam nit kese moo ñëw moo tax leneen gis euh, ay taalibe moo xam murit la war a tijaan ñu doon vrai taalibe seen yoo néew ci àdduna ak doxalinam. dañuy woyof toy tey xool ku mel ne maam Abdou Aziz Dabakh xool ku mel ne Serigne Fallou xool mel ne ko Serigne Saliou et donc ñoo xam ni. nit yàlla lañu. mais mu mën sol sax gars yi ñooy dañuy bàyyi ba mu jàpp. ba ñu jël mbubb ma changé beneen mbubb solo ne wu ci bu set ba ak bu mu rafet ba. xool kooka te pourtant bu xëyee ngoon laaj milliard balaa timis ñu jox te pourtant ñoo gën a woyof. sunu maas nga xam ne cent franc mënuñu ko lijjanti ñoo ni gong. ku la nuyu sax doo ko fay di kii nga kii nga ci mel na yaa mu adduna bi te kat gis nga gaa yi weex yi ngay gis ñuy njaay hey léeg-léeg ñëw ci service waa service bi yëpp teg muy nappe pourtant bu ñibbee këram benn xale bu jigéen rek moo koy réglé comme man eh, te xool ma feew app mi ngay ñàngal ne nangam nangam ah non fais attention du dara quoi koo ci gis bu ñàngal ci service tàppet la këram di fatwa service ba te bu ñëwee këram xale bu jigéen bu ndaw a koy def loolu ne ci biir kër gi mhm. ah kooku nga bëgg nga mel nga doon ak ak ñoo bari nag ñooñu dañ ma baal ma ñëw ñëpp ne <laughs> waar ba tax na li tonton Ngari waxe am na solo lool kon képp koo xamante ne nii yaa ngi yor moo xam société la moo xam sa kër la moo xam sa palaasu liggéeykaay la ña nga fa nekkal xamal ne fii nga toog yàlla la fi teg te bis mun naa jot mu wàccee la fi teg fi sa morom kon nañu ànd ak yar ak teggin te xam ne lu dul yàlla rek neen la ndax yaa tey boo ñuy wax jigéen ñi nga xam dañuy bàkku man sama jëkkër sama lafu sër laa ko takk kër gi lu ma neex laay def lan ngay wax wax jigéen ñooñu loolu dama jàpp ni gàtt xel la rek bu mm-hmm. jigéen moom ñeneen ñu wéere bi sa géru la xelam sa jigéen moom dafa gàtt xel mm-hmm. dafa gàtt xel yow weesuwul nga taxaw di bàkkoo naan sama jëkkër si laa ko fase sama jëkkër nangam laa ko laa ko ko def loolu moom amul sens mm-hmm. yaakaar naa ni bu dee relation diggante jëkkër ak jabar moom mu naturel ni lu naturel la parce que fas sa jëkkër fii bu subaa bu fekkente ni danga koo fas te lu dul dëgg du yàgg fas ba bu deñee boobaa di ñàkk sa borom kër te yaakaar naa ni góor léegi kenn mënu leen a téye boo ñi fi bàkku rek ñoom ngay xëy rek dégg leen indi takkal na leen yoo defal na leen yoo defal nañ leen la góor ñi moom ñu ngi fere ku mm-hmm. ñi góor gu fi tax jigéen di bàkku moom mm-hmm. dama bu yeboo nga jël ko ndànk teg ko ci suuf mm-hmm. parce que ñoom moom kuy bàkku ci ñoom bi dañuy xëy rek def li ñuy def yow nga am defet nag toog di xoole waaw macha allah yow nga am defet rek eh, toog fee di xoole ba tax na kon yàlla nañu yàlla musal ci defet te fu ñu toll mu ñuy may ndam boo xam ne bu ñu jig la ndam boo xam ne boolewuñ ci daraay bàkku ci barke mu Muhammad ndax doomu aadama defe naa ne du dara Babacar bu dee jàppal na rek nga indiwaatal ñu suñu beneen élément ñu dellusiwaat fii si plateau yi. Euh, yaa ngi fii ci biir euh, Leral TV ci seen émission pencu aada cosaan ñu fas yéene waxtaanee thème bu am solo muy ndamu lan nga ñu mën a wax ci ndamu yaay booy. waaw ndamu de am na li ma ci kam am na fànn bi ma kam ci ndam waaye ndamu bari na na lool bari na kaf ak lool waaye ndamu li ma kam ci ndamu ndamu yàggaana itam ndax am na saabu yoo xam ne yàgg nañu am na benn saabu kam ne bii dafa amoon am am bee demu ci ba mu wël bëti ñaan yàlla man sama am am bii yàlla na ma ko yàlla wàññil te xam nga ne loolu daanaka bu ko ñaan yàlla nag yàlla ñàkkal ko ñàkkal ko ba mu génn néew ma tekki ndamu daal boo ko dee def itam ñaareel ndam yit am na di nga dëkkandoo ak nit wala nga xam nit moo yàlla may ko te yàlla moom ki am ki ak ku ñàkk gi yëpp yàlla moo ko def yàlla moo na boole ñëpp yemale waaye yàlla deful noonu waaye boo xamoo rek fànn bi la yàlla jo nga kéewlu ci nga bañ nga bañ kii kam ne yow am kii amul nga bañ ko keeb ak loolu kam ne yàllaa ko ko def moom am na ñi mu sakkal an wala mbokkam sax am amul mu ne kii li ko li ko mu amul dafa amul pekk dafa amul man-man de wallaay du loolu yàllaa ko sàkk di ko jox lu mu lu war ci moom ndamu daal li ma gën a kam ci sama doom ndamu ndamu daal bokkul lu gën bu la yàlla jokee lu xam ne yaa gën yaa gën a kaw sa morom wala sa dëkkandoo yow bu ko bu ko ko woon nga xam rek yàllaa ko moom mais boo ko mënul defal itam bu ko bu ko ne yàllaa ko def mu daal moom c'est pas normal mu kam ku ko def moom génnul jërëjëf ok yaay booy ñu ngi lay jëfal bu baax kàddu yi am na solo kontaan. ñuy jaajëfal suñu yaay jooju di ko ñaanal jàmm li mu wax wax ju am solo la kuy ñaan rek ñaanal yàlla li nga bëgg ndax yàlla suñu borom daa nekk buur boo xam ne loo ko ñaan mu may la ko kon kuy ñaan ñaanal loo xam te yéene sa bopp jàmm yéene ko say morom mu mën a nekk tonton Ngari dégg li mu sañu yaay jooju wax léegi nee na dafa am koo xam ne dafa amoon alal dem bay ñaan yàlla na yàlla wàññi sama alal bi yàlla wàññi alal ji ba amatul dara lan nga ñu mën a wax ci loolu waaw yaay booy ñu ngi koy nuyu di ko ziar jàmm ak tawfiq eh, mag du yàlla waaye dafa yàgg yàlla mm-hmm. da yor ko yàlla mm-hmm. xam lu bari fa lu ndaw xamut mm-hmm. seen i dafay neex di ko taataan eh, dañ ciy jëlee njariñ kese eh, waaw loolu lépp dafa bokk ci xeetu ndamu ñi am alal ñaari ci bu ci ëpp bu leen yàlla dimbeewul mooy ñi jaar daara jàng al alquran jàng jàng yàlla ba xam ko ndax yàlla dafa laax bala nga maa jaamu xam ma ñaari ñooñu bu ñu amee alal mhm. alal bi day neexee dañ koy neexee téye mhm. parce que du alal joo xam ni daf leen di jiital mhm. ñoom ñoo koy jiital euh, boo demee balan yàlla li nga may tax daa bare wàññi ko mu woon la ni am naa koo xam ne gënoo ko te joxuma ko dara nga delluwaat ci coono ak naqar Sénégal nag euh, da ngay gis ni tous les moyens sont bons nga am dara moo tax catastrophe yu bari di am sacrifice yu bari bi di am <laughs> pour am xaalis mais loo ci def boo amee xaalis réccu ko loo ci def boo amee xaalis réccu ko parce que xaalis bi li ci mën a am mooy kër li ci mën a am mooy oto booy dawal li ci mën a am boo dee góor jabar li ci mën a am boo dee jigéen ay takkaay wala ay doom te bis boo defee sacrifice bu ñaaw ba am loola ñooñu gàcce am pare nga léegi si diggante yàlla rek moo des. excuse mënu ko faa demande parce que ba nga ko def yaa ko tey jaru ko joxe yàlla dàq joxe seytaane joxe seytaane muy sacrifice. Mhm. kaa yi rey sa doom ji mbaa sa mhm. baaram bi nga dagg ko mbaa mbaa yu mel noonu pour nga am xaalis. lan moo ko fi jar. Mhm. ñooñu nag ñu ci ëpp ñu ci ëpp ñooy bàkku. parce que nañ def ba am xaalis dañuy wax dama sacrifice intérieurement loolu la ñuy wax. kon kenn du ma adduna yebee la ngi commencé ci li yàlla sant dévot. da boole ku la ñàkk solo lay doon. mooy ku doon ku ñu ngi gis ñuy bàkku ñëpp dañuy am alal. mbaa ñu am ndombal tànk mbaa ñu am signature defal li ma neex mbaa nga wax li ma neex mbaa doo bokk ci li may joxe ka def soo tasee ku gëm yàlla mun la téel lépp ma dem fa yàlla toog te toujours mooy mujj ndam la te dem fa yàlla toog parce que yàlla li mu yor du jeex kon nit ñi il faut exemple lu ko nañ def ndànk adduna day wax ba sonn ki ko seetaan émission day wax ah sa waay daal xanaa daam ku mere déedéet parfois da koy dund di ko wax te merewuñu mais nit ñi gis bàkku la euh, maam Marème da ngay gis suñu mbokk politicien dañ ma baal mhm. ñoom laa jël exemple ci ñoom mhm. euh, am na ci benn femme boo xam ni damaa bokkoon ci ñi ko njëkk a apprécier mhm. damaa gis mu def benn geste ca laa doyalee damaa gis këram ñëpp toog ci kaw ñëpp toog ci ay jigéen noonu moom toog ci suuf mu toog ci canapé bi ci kaw tiim leen ko di di ma ne kii ma def ci croix doyu ma ci njiital réew. man damaa bëgg commencé ak jamono ak nit ñi. kaay ma jiiti leen du yow yaa da koo bëgg ma yàllaa koy tànn. kon fexe ba parce que ñi ngi jiiti ñu la daaka jàng ci ne. ñu la gën juddoo ci ne ëpp la xam-xam ëpp la gis-gis di fanaan fa yow doo ko def. kon pourquoi nga bëgg a diriger ci toog ca kaw. gars toog ci suuf ngay wax. ma ne kii doyu ma. man damaa bëgg commencé nit ñi. damaa bëgg ku doyoo nit nit ñi. donte ëpp nga capacité fa yàlla. maam ma ne bis bu ne nga waxtaan ak koo xam ne mhm. bu 6 heures jotee bu julee timis fa yàlla aras ah. lay fanaani mhm. cinq heures du ñëwaat kaw suuf te da ngeen ci marché bi mhm. mu di la xool nii te gara faas ñem ak a ñëw te fu mar di maase mu fanaani fa yàlla xam na kañ laay faatu xam na ñaata ngay am xam nga loo yor sa poos xam na say projet te day reeka kaf di def n'importe quoi bis bu ñu gis ko ki ñu tuddee doof mu laxa ay sagaram di la romb pourtant day bu la nuyu da koy da koy seexlu. te eh, noonu dama dama dama dama. billaay. te bu su su buñ julli gee ma naa ne ataaya ba fajar mu mm-hmm. fi di di xaral ci kaw laal yeeg. mbaa yi. Mm-hmm. xam nga nit fan la gis ñàkk fayda. wala mm-hmm. nit mu tudd. di xër di xaral di waxtu. te bu yeewoon ak ba sangu xool di biiñ na soxla na leen fay te loolu ne def na ko ci guddi gi. <laughs> nit ñi ñoo réglé di moo tax gis nga koo ci filmé woon bu subaa nga tegal ko rek mu réglé. ku tiit fàtte sa tur. dëgg la ah, macha allah tonton li nga wax am na solo bu baax a baax ndax nit dina la romb nekk koo xam ne dafa dëddu àdduna. Hmm. nga di ko xeeb ak di ko ciikar yoo xam ne dafa am sëriñ bu toogoon ak ay ndongaam am ndongaam bu ñëw ne ko ñaanal ma damay tukki mu ne ko ndax yàlla ma sol ci jasineer yi yor ci iPhone bi moom sëriñ bi. mu dem ndongaam bi ci bi gën a suufe ca foofu maam ka ca gën a tuuti ne ko sëriñ bi mbaa xam nga ne sa donga bii de dootoo ko gisaat mu ne ko dangaa soxor dangaa iñaan ndax li muy tukki li yéeg ci avion yi te yow yéegoo si avion yi ñu def ci ay weer ndongaam boobu tukki woon génn àdduna mu ñëw ñu yóbbu ko ci almeeri ñaanal ko defar bay waññeeku mu jàpp ci loxo donga bi ko waxoon ne kii de doo ko gisaat mu ne ko mbaa doo kañ nga may wax ne ma xam nga xoolal ma ba xam kañ lay génn àdduna mm. kon xam nga ne yow yaa ngi xeeb nit ki di ko mm. ñàkkal solo mu ngi toog moo lay may ndox nga naan moo lay fobeeree moo defal lépp te la mu xam si yàlla yow xamoo ko ci yàlla mm. ni nga ko waxee am na ñuy fanaan ci yàlla mii am na ñuy fanaan ci seeni téléphone am na si ñoo xamante ne ñu ngi fanaan ci buwaat di am ñoo xam ne ñu doy te suñu génnee suba dañuy fëgg seen dënn di bàkku nday yàlla nga wax ci loolu. Euh, maman Marème pour man àdduna bi yàlla suñu borom dafa wàcce li muy wàcce wax li muy wax teg fi lu baax am am yoon bu baax am yoon bu bon ku mu neex nag am nga droit choisir yoon bi nga xamante ni moom moo la gënal parce que kenn moomul kenn kenn jugé wul kenn yàlla suñu borom moom mi la sàkk moom moom moo lay jugé. moom mooy xool yow euh, soit boo génnee àdduna mooy xool àddina nga jëm wala safare nga jëm kon euh, yaakaar naa bu fekkente ni ñooñu nit lañu ñu tegal la yoon bu baax bi tegal la yoon bu bon bi wax la yoon bu bon bi conséquences yi mu am wax la aussi yoon bu baax aussi conséquences yi mu am boo dee nit boo dee nit ku conscient laa wax di nga jël yoon bu baax bi parce que moom moo ëpp avantage mais nag am na ñoo xamante ni dañuy topp seen bakkan di def loo xamante ni duñu xalaat yàlla dañuy fàtte que yàlla am na te buñ demee ci yàlla suñu borom danañ xam ne yàlla am na mm-hmm. te yaakaar naa ne def lu bon amul solo mm-hmm. amul mujj def lu baax mu gën parce que looy def rek na doon lu baax ndax mm-hmm. ëllëg nettali ba rafet macha allah ndax ëllëg nettali ba rafet ba tax na lu dul yàlla rek neen la may ziyaar sama yaay ja may mun a mu nga ca ndakaaru njaay muy yaay ju baax joo xam ne fu mu la woowee li mu lay njëkk a laaj mooy mbaa yaa ngi julli mbaa say njaboot ñu ngi julli salaatul ala nabi bu mu am envoyé la ko del def bii del léemu del def nangam yow kay yàlla sa jàmm yàgg yàlla yàlla yàggal la fi bàyyi la ci sa kanamu njaboot Babacar su dee jàppandi na rek nga indi ñu beneen élément ñu ñëwaat fii si plateau ah damu. damu ndax war na ja doomu aadama. ah lu la yàlla jox ba ngay damoo ko. nite nga la ko ëppale fop te dëgg moom ca jafu ko. la nga war a damoo dimbalee ko doomu aadama yi gën ba cal doomi aadama yi di la waxal lu baax ya ngay jëf wax ju baax ja ngay def sa alal ja ngay def sa ak sa doole sa kattan moo gën ngay damu ndax looy damu rek am na ku la ko ëppale ca mi ngi noppee moom ca jox la tax ngay sant moo gën di damu waaw sant suñu borom. waaw sant li nga wax am na solo lool sant moo gën di damu ndax nit lu mu yor yàlla moo ko may mais est que nit war na nit war na war na war na di damu est-ce que nit moom na di damu ak di baax. dama ni lu mu yor wala lu mu man ba koy damoo am na ku ko jox wala ku ko ko ëppale fop wala am ku ko jox lu tax muy damoo lool te kooka damu wu ci bu xoolee ca kooka du damu moo tax ma la dafa war a sant. sant ka ko jox la tax muy damu sant suñu borom mi ko may kàttan ak fekke ak tal ba tax muy damu waaw ndax su su su la am na nu la doon defal ñu la mënti jox doo tal a damu sa bopp rek ngay tal ko doom nit ki dafa doomu aadama yi dafa dafa war a modeste dafa war a humble damu moom warul kenn xam nga ko war a damu pour man ki dee dem àjjana moom bu toogee ci diggu bu ko neexee damu xam ne wàccoon ak suñu borom <laughs> waaw waaw loolu daal moom laa defe ne kooku moom moo war a damu waaw xam nga da ngay toog comme ni naan damaa bëgg a noppalu man man leen noppalu da dëgg la waaye noppalu daal bi ci gëj mooy dee dem àjjana fii moom noo fa am laa amu fi keroog ba nga gënee bari le la la coono gën a dal moo tax damu moom warul doomu aadama warul benn benn benn benn doomu aadama man ngaa yor nag di def ci nit nit ñi di la waxal diw nangam diw da baax ne diw di nangam mais bu mu la tax a damu mukk ndax boo damoo rek da nga naagu ca soo naagoo danga nga daagu ca boo daagoo gaa yi raw la wallaahi waaw papa kàddu am na solo lool ñu ngi lay jaajëfal bu baax lii moom amuñu luñ ci teg wax nga lépp dañ lay ñaan yàlla suñu borom may la gudd fan ak wér yàlla may ñu ñu topp kàddu yi mu jëriñ mu jëriñ ñu ngi lay bàyyi. ñu ñaan rek yàlla defal ñu jàmm ak ak xéewal may ñu ñu dal damu moom da dala ko gën boo dalee danga mën da nga yor lu tax nit ñi di la waxal say ndam ca doo ko wax nit ki du bàkku ndamu moom mooy bàkku ca fii mu ne ci ñun ci làmb lañ ne àddina làmb la. ku daanu ba dem ca dem àjjana nag bu ko neexee dam waaye bu leela yëgee ne teel ca làmb ji poussière ba jëm doo damu da ngay sëgg rek ah man nag maa leen di ñaanal a ah yàlla yokk leen gën a taxawal seen liggéey. waaw ñuy jaajëfal suñu papa boobu di ko ñaanal jàmm di ko sàkku ci moom di wax ne li mu wax yëpp am na solo ndamu moom defe naa ne yàlla suñu buur bi rek moo ko yelloo te moom rek moo war a ndamu mooy lépp mooy borom kun fa yakkoon te li wax tamit dëgg la képp koo xamante ne génn nga àdduna ba dem àjjana su la neexee mun ngaa ndamu xam ne sa mission ci àdduna jeex na mais yow yaa ngi nekk fii xamagoo ci looy yéenu xamagoo looy fanaan defe naa ne kooku war naa tal leneen lu dul ndamu tonton Ngari dégg li suñu papa jooju wax lan nga ñu ci man a leeral. Euh, ñu ngi koy gërëm ak a sant doyen bi di ko ziar bu baax ci kàddu yi rafet yi njëkk ci wala dëgg euh, même sax ki dem àjjana du mooy ndamu parce que daa am ko tabax àjjana bind la moom la neex nga dem àjjana su ko la neexoon sawar a ngay jël kon daa wóorul rek ki taxaw daal euh, bisu barzaq xuma rek yemal xiyam barzaq laa wax escale bi nga xam ne ñëpp. Euh, bu nu ufuree gi ba lem suuf ak asamaan sëb ku ne coppati ko ca bàmmeelam François Mitterrand Ngaare ma xujj faal ak ñëpp ku ne tarax ñu lay taxaw ak say bët di xoole comme looy ñunu dara ña yoroon signature ya ak kàddu ya kenn ko liim liim yi jaaxle malaaka wër nu jënnee nu wër ñaari yoon malaaka wër nu ñetti yoon mm-hmm. parce nag bu kenn fàttali yàlla dafa gërëm doomu aadama mm-hmm. parce que l'homme est le représentant de Dieu sur terre loolu nit di fàtte yow yaay kuutaayu yàlla ci kaw suuf loo rek dafa am noo taxawee gis nga da gis ci bokk politiciens yi ci laa ñëwaat ba tey saa da gis ci campagne bi nii ñoom ci kaw oto la ci oto la dugg de toog ca kaw oto dafa ñaar loxo yi ci kaw ay dox ndeysaan ñi lay fal ñooy dox ñoom mm-hmm. ay kilomètres ngay def nii ñu yuuxu yow yaa ngi sa oto teg sa ndox mu sedd si biir sa jabar ci gannaaw mhm. sa ilay sax sa doom ju góor ca wet ga mhm. ngeen ñu naan si ndox yi sedd mhm. ñoom ñi ñi lay fal dox moom ñoom ñooy dox yor sabar yaa mbiir yaa kab ya ay kilomètres la ñuy dox ndeysaan ngay bàkku bis ñu fal la nga jox déclaration faroon nga kee nga jaay géjjam kee nga jaay karotam ci woyofte loolu war naa tax nit ñi di am recul taxaw ki maas ak yow cib dox àndal ak moom bu faloo téye la waaye kilitin cib dox bu faloo du toog dootul amal naka la ñuy fale ndey ba ni ko yow la ñu dénk dëkk ba ñu koy tëggal sabar mu yëkkati loxoom ndey ba daa war a jaaxle ah man dénk nañ ma cent cinquante sept mille d'habitants seen ndox seen tali seen i làmp seen seen lépp ci man la war ah waaye man danaa mbaa danaa ko réussir waaye sabar yi day namsee mu gën ci kaw étage bi def nii ñuy tëgg muy bay bàkku dégg nga maam euh, copain yee topp ca di yëkkat seen loxo di bàkku ñàkk xam-xam fan la ngay bàkku ku ñàkk xam-xam rek koy def parce que yàlla dafa am yow benn cause diggante yow ak doomu aadama ak yàlla sama borom parce que dalaa teg ci bopp askan wi xam na lu tax nga war a liggéey ngir ñoom nga doon seenu jaam bañ la jërëjëf waaye ci seen kaw bopp ngay toog di bàkku xoolal loolu ngay takk katu der takk der Babacar ak Ngari am problème yow en tout nga gën a xam Babacar yow nga tëgg nopp star du du ci violon bi porte fan nga ko teg sama doole laa ko teg ay rangooñam di wat tànn di jër ci koo tooñ nga yaakaar ni danga ko maasa yaala yaale noonu déedéet képp ku ma sa def ak coxor ak bàkk billaahi wallahi taala bala ngaa dee yëg nga ko ci kaw nga feeñ ak nga ñàkk feeñ ñaata nit fi newoon di ordonné bala ñoo dee dañoo torox tubay jur sol sax amatuñ ko ana seen kàddu ana seen kàttan kon bàkk nit nit sant rek la war a def moo tax toujours bu gars yi di euh, nu tuddati di di di di ñaxtu damay mer parce que man bëgguma nit koy ñaxtu man nit santal rek santal rek parce que démb ci centre culturel euh, sunu mbokk yi doon def canne blanche maanaam silmaxa ma gis rek ko Ablaye Mbaye bu jigéen bi di woy barke alxuraan genn wàll gëpp di jooy elle est très belle jigéen jànq sol sol sol jànq comme ñëpp te malheureusement gisul kenn di gëm yàlla su ma seetaanee spectacle handicapé yi mënu ma ko saan bam jeex déedéet pourtant nit lañu mais ñi lay wan ne man sama ngëm yàlla tax na lu ma yàlla ma def maa koy sant ci lii ngis koo xam dara jotu ko mhm. tubarkalla lépp a mat na mhm. mais ci ñaxtu la dëkk ah réew mi ne moom doxul moom vraiment affaire moom dëgg-dëgg nangam nangam nit ñi mu ñoo yee yàlla meranu yàlla moo yey meranu dañ koo santul di ko xalab rek lu mu jox doyul te bu bari lee sunu yaaya du moom yamal xiyam ca ngoon boori timis ak ay neex tamit bu nee may bëgg a tëj buntu bi. Hmm. nga gis yuuxu dina jub foo ko foogeel woon. Hmm. bu bu jaaxle euh, mbaa gis nga gars yi ngay gis ni hmm. mais xoolal rek ministre yoo xam ne toll na jamono bu ñuy génn. da nga maam flèche bay génn motaar yi. feu rouge ak feu vert feu blanc ci yëpp. ay jàll. léegi dafa ba nga wàccee nga jaar feu la ay damaa tëdd bi nii. ku la koy wax policier boo yilifoon barki dem. maa la wax lii. nga ne kooku ci biir oto bi mel na njugub. di xaar comme ñëpp parce que wàcce nga. loolu rek benn exemple. dëgg la jar bàkku ndomba yëpp lu ñu teggi ba mu des ndombal gëm yàlla ak wóolu ko ak mhm. sant. Mhm. yeneen ndomba yëpp a teggi. dëgg la yeneen ndomba yëpp mooy teggee ko ba mu des bopp moo tax doomu aadama bi foo nekk rek del suufee sa bopp. Mhm. yàlla di la kaweel mais boo kaweelee sa bopp rek yàlla dalay daal di daaneel ñuy ziyaare suñu tata yooyu nga xam ne ñoo doon def seen feet boobu muy suñu mbokk handicapé yooyu nga xam ne mooy silmaxa yi ndax nee naa leen handicapé si xol la handicapé ci jëmm la ndax lan sa xol mooy handicapé mooy yàlla bëggoo yenant bi kooku moo am laago mais loo xamante ne natt bu la yàlla teg la dalaa fànqal leneen ndax am na lu la yàlla di teg am na leneen lum la fa jëlee ndax nit ki nga xamante ne ni li coon seek wax rek ku dund gu sotteegul lu nekk xaj na ca àdduna weeru koor la balaa jant di so rek juumu mun na am kon nit ki foo tollu rek santal yàlla tey jàpp bis boo xëyee rek man mii tey jii balaa ngoon lu ne mun na maa dal mën naa dee mun naa def damm mën naa gumba lu ne mun na maa dal kon doomu aadama bu nekk rek santal yàlla te nga xam ne indi handicapé ci xol la mais du ci jëmm kon nañ santal yàlla bu baax nday yaa tey lan nga ñu mën a xamal ci li nga xamante ne moom la suñu tonton boobu wax yaay jooju sama mhm. papa jooju maa ngi koy jaajëfal bu baax mhm. di kontaan ci disponibilité bu heure bu ñu mhm. ñëwee mu yombalal ñu ko ba ñu mën ko dekk suñu micro di ziarale tonton Matar bi may àndal ci interview yi li mu wax euh, nekk lu am solo parce que nee na damu warul kenn yàlla suñu borom rek moo moom moom damu ne na nit warul damu nit ku nite boog warul damu li mu wax dëgg la parce que nit mënaloo sa bopp dara euh, loo mën dañu la koo mënal boo amee sax yàlla la comme tonton Ngaar li mu wax rek déjà handicapé yi rek ku xool ci ñoom rek mhm. nit boo xëyee war nga gën a mën a sant yàlla mhm. boo amee war nga sant yàlla boo ñàkkee aussi war nga sant yàlla parce que nga xëy teg say ñaari tànk rek nooyi rek xëy dara jotu la rek doy na sant yàlla parce que ñoom li leen dal tey yàlla suñu borom moo leen ko teg ñun gënuñu leen mënoon nañu dal ñun yëpp mais tamit bu leen ko tegee ñun misaal la ci ñun que ñu gën a dolli gëm yàlla te mhm. xam ne ay nit lañu comme ñoom mhm. loolu mën nañu dal mhm. mën na dal keneen ak keneen moo tax euh, euh, damu warul kenn parce que même kilifa yi ngay gis sax damu waru leen parce que euh, fi mu toll nii nit mënalul boppam dara yow li ngay xëy di ko damu keneen mi ngi mi ngi am lu gën a ëpp loolu tam mi ngi toog ni dégg kenn dégg ko li ñu naan barigo yi deful dara yi ñooy bari bruit mais barigo bu def dara danaan dégg kenn du ko dégg dem en ñu ci ëpp ay nit ñi genre nit ñoo xamante ni yàlla ma yàlla baal yëggal ma tekkiwuñu dara mm-hmm. am na ñoo xamante ni vanté wu moo leen ci yóbbu dañuy taxaw naan am naa lii mën naa lii def naa lii mm-hmm. pour yokk seen kii nit ñi gis leen fekk na la ñuy wax dara amu ci mm-hmm. am na ñoo xamante ni nag am na mais bu la yàlla mayee nga nekk nit waroo koo damoo parce que ki ngay damoo mu koy dégg yàlla aussi moo ko sàkk mhm. te yow mënoon na jël li mu la may tey mu may ko ko kon mhm. kooku mënoon na damu mhm. moo tax nit kuy damu koo gis rek dafa fekk ni amul xel ndax bu sa xel delloo ci yàlla sunu borom nga xam ne lépp moom la rek yaakaar naa ni damu waru xaj foofu macha allah damu warul xaj foofu ba tax na nit a ngi xoole te xool lu ci dul lu bon lu ñaaw defal ma ngaari mu dof defal ma ko mu damm na société bi mu nekk na daanu bureau bi mu nekk na fa jóge nit yàlla muur ay bëtam te fu mu toll mu ngi yéen nit lu baax di xalaat lu baax bëtam yooyu mu jéem a xool baax ba tey bu xoole woon mu cay xool lu baax kon defe naa ne laago du dara lu dul ci xel kase la ci xool la nit a ngi xoole te deful dara lu baax nit a ngi yor ay tànkam di dox heure bu xëy suba ba ngoon mu ngi dox ci luy tàqale ay nit di yàq der di indi musiba naaru laay moo xam fitna la mu mën a doon da ngay gis ci tali bi sax ñaari oto yu dalante au lieu que nga jéggal ko xam ne nit dong la mais da koy topp topp ko topp ko ba mu sës nga gis koo xam ne day ëpp doole moromam duma ko ba mu sonn ndax lan di ko wan nii laa toll ak ne defe naa ne loolu jarta jaay nu ñuy delluwaat suñu xel ci yàlla suñu borom ndax ñun ay doomu aadama dong lañ tonton nga tey boo ñu doon wax ci la moo xam ci lum day dem ba ci daara yi da nga gis xale boo xam ne moromam da koy mën duma ko ba mu sonn nangu yelwaanam mbugal ko ba boo fay rombee sax yow sa yaram day daw. waaw loolu moom yàgg na sax ci école yi daara yi. mu mhm. doole ci gone woon kooku. Mhm. Euh, nangu la mhm. xëy te ku xëy la nga yor nangu. ñu ngi fi waaye loo ci gis fi jamono toll euh, jàngi alxuraan dafay di gën parce que boo miinee alxuraan lu bari doo ko def. Sénégal am na ay milliardaires yu jàng alxuraan. ay milliardaires. doo leen dégg ci yenn catastrophe yi mhm. doo leen dégg ci yenn puukare yi doo leen dégg ci ndamu yi mhm. parce que jikkooy ndongal daara la ñor mhm. pourtant ñu ngi ki milliard mën naa la jox ku mel ne Ablaye Diabo Sénico alalam yëpp ci alxuraan la ko delloo mooy compétition alxuraan yi def mu teg ci ay millions te bari na tey boo ko boo Ablaye boo tegoon photo di laaj ku mu doon ñu bëri xamuñu ko. Mhm. parce que boo ko gis ci yu bëri. dëgg yu caaxaan yeeg yu puukar yi loolu dafa mhm. bokk ci. Mhm. Euh, ku ndamuwul tax miin alxuraan. nga ci lim sëriñ boobu. ak ñeneen ñi ñeneen ñoo xam ne. daaray kokki ji lañ jaar. yàlla pare yàlla wërsëg leen alal. ñu téye di ko doxal na ko yàlla bëgg. kooku du mën a bàkku. parce euh, dafa jàpp ni nit feek yaa ngi sóor dee. booy tëdd ne mën na ma bàyyi yow. soo yeewoo li ngay njëkk wax mooy alhamdulilah rabbil alamin ndax yaa ngi nit bokk ngeen heure bi ngeen tëdd yeewul mm-hmm. soo sëppee say tànk ba taxaw santal yàlla parce que am na ko jugut mm-hmm. bëccëg bi nga dox baa njot ngaañ santal yàlla am na ko ci jaarul mm-hmm. ëppoo ko dara ngoon gi noonu fanaan gi noonu bis bu ñu tàgge sa morom ñoo xam da pourtant ñoo tase léegi waaye la ko yóbbu bu ñàkk fayda li fi bàyyi du seen jàmbaar la ko yóbbu ba ngi dikk so deful de day dem aller retour mais kenn xamul lu mu kon li ci war Marème mooy dellu fa yàlla jamono dellu fa yàlla sax daa jot xam nga démb damaa ne gars yi ndax yéen a ngi seetlu jamono su nawet ma saana jot am na gunóor yu xonq yu daan kenn gisatu mhm. loolu exemple la ndóox yi daan naaw gunóor ndóox koo ko gisati ñii loolu ndóox gunóor gu daan naaw gars yi daan ko jàpp temps yi doon booy takk ci tànk bi fiil topp ci li daw amatul lu bari la amoon bu ma saana lay day sedd ba sa giriñ gi day gën a saxaar layu diig bi tàngoor leen daal il faut nit ñi taxaw xam ne àdduna jeex na ku mu neex ak ku mooy dem ba jot na oto bi taal na def na essence am aj na mbaal mi yéeg a des te daan yéeg par force dëgg la kenn des gannaaw apprenti yi a ñëpp mooy malaayka yi par force yéega dañuy dem ba sàkk kon comme jot na te léegi at ñuy calculer at yi kenn xamul kañ la. Mhm. mais daal ñoo ngi dem. nañuy xoolaat carte d'identité yi comme ni nga koy waxee. waaw kon ak carte d'identité ak bàyyi ndamu yeeg bàkku yi. Mhm. man li ma gën a naqari mooy. Mhm. wax naa ko sànq kii joxe dépense am këram di ko bàkkoo. man góor googu neexuma. bëgguma ku mel noonu. ah maa la ngay bañ waaw parce que jox naa dépense gaañ. bu taxee takk jabar loolu la jure bu la ci doon fekk bul jur kenn bul takk kenn nga dem sa sa sa yëy sa bisku bu bopp kenn du bàkkoo loolu <laughs> parce que du yaaw yaa leen jox wërsëg yàlla leen jox wërsëg teral la ko yow muy góor teg ko soxla pour nga joxe ko loo ko bàkkoo mm-hmm. jëndal sa jabar ak or daa jar bàkku mm-hmm. Ah, non ma a dem ville bijouterie non ma dem daal wutal benn chaîne or. boo tasee góor gu am ful xam nga sama yoon newut si loolu. loolu moo jaaxal. am na ko jënd <laughs> boîte or pourtant yow waxu ko. Mm-hmm. am na ko jënd oto démb. Mm-hmm. am na ko tabax château may ko jabar. Mm-hmm. da ngaa ko dégg loo ciy bàkku. da koo war a def. nit lu ma def ko. bu ca bàkku parce warif la. réew mi nag bàkkoo fi loo waaye def bàkko. macha allah lu waaye def euh, bàkkoo ko ba. tax na rek yàlla na ñu yàlla musal ci ñuy bàkku bu baax a baax fu ñu toll rek ñuy santaat yàlla bu baax comme ni ma koy waxee saa su nekk nañuy sant yàlla ndax yàlla mooy maye nañuy santaat yàlla bu baax di delloo suñu xel bu baax ndax lu dul yàlla rek neen la ndeyaa tey boo ñu doon wax solution yi tey la nga ñu ci mën wax. yàlla la mhm. kon bàkku amul sens bu mhm. ñu delloowaat suñu xel yi suñu ci yàlla suñu borom mhm. yaatal xol yi am yërmande koo tane dimbali ko te xam ne yow li ngay dimbalee yàlla suñu borom moo la ko jox mënoon na la koo xañ dañuy wax naa ñaan bu nangu sax sonal borom am na ñoo xamante ne dañuy ñaan alal da am alal mais bu ñu amee alal sax dañuy am problème parce que dañuy am alal da lañ cey def lu baax te yaakaar naa ne alal ji lu mu gën a bari boo yeggee laaj foo ko dugal kon euh, boo santal boo ñàkkee santal yow nga am sax di dund paisiblement sax loolu moo gën a nekk noflaay que nga bari la ba pare defoo ci dara ndax boo yeggee fële dërëm bu ne bu la laaj foo ko def mënoo koo wax da am borom dalay sonal kon moo tax nit ñi nañ delloo si xel ci yàlla rek mhm. te xam ne yàlla suñu borom rek moo yeyoo bàkk moo yeyoo bàkk waa ñu aussi yaatal xol yi aussi mhm. am yërmande tamit di jàppalante parce que comme tonton Ngaye li mu ko waxee rek mhm. àdduna jeex na ba pare amul benn sens lépp ci nettal lay mujj kon na rafet rek macha allah toujours nay rafet rek tey sant yàlla comme ni ko gars yi waxee nay rafet tey koy sant Ndiaye mais nay rafet toujours te ñuy santaat yàlla bu baax a baax a baax tonton Ngari tey solution yi mooy lan. jëm fa yàlla rek. ki mhm. ngeen daal fi mu ne Ndiaye. Mhm. wàcce garaat yi. Mhm. takku bi doy na. takku bi ci tekki lay mujj rek. député la woon. ministre la woon. président la woon. directeur société la woon rek ngay dégg. waaye doo dégg sëriñ la woon. sëriñ ba tax la sëriñ laa tax wax de. façon gaa yi. Mhm. parce que tax na façon gaa yi mooy. gis benn ngaari bi nelaw ba yeewu ni li ma yàlla woon bii. Mhm. man dama xam yow bi ngay nga lekk yàpp wun wàjj. dañ teg teg ci ñaari baraada ya mhm. taaya. naan meew soow. ni gër géex. jeeg fanaan sa gannaaw. nga sol pyjama. ni damaa gis yàlla. yàlla day yàlla day ñëw ci kooka. <laughs> waxante dëgg dëgg la boo xëy na laj di télé naan yàlla woon na ma yàlla dafa gis nga li wax am d'état mhm. yàlla dafa bëgg nit ku am secret jabaate rek c'est pas que yow même bu la yàlla déy sax mhm. waroo xëy coog ci télé naan yàlla nee na ma yàlla bëggut loolu mhm. yow la ko wax bu fekkee yow la ko wax mais man ragal naa ni ku jonga ma fanaan sa gannaaw gàllal loxoom ba bët set gisoo yàlla gaa yee gis yàlla laaxu Dakar la ñu reere mhm. ci der la ñu fanaan ci course la ñu yor mhm. jigéen ñaag fan dëkk ak ay soreantoo mhm. duñ dëgg sax kàddu la amee jigéen kookoo dëgg mal yàlla parce yàlla caaxaanul san bàyyi fomi gën laa bëgg gis neer xale bu xees yàpp wu duuf dix mille yu bees tàq oto bu nooy paran gaa yàlla nga doo gaa yàlla gaa yi seytaane mooy li nga wax léegi parce que dërëm laaj foo ko jël ak foo ko dugal danga ko répété yàlla akam ful da nga fula suma yàlla ñi nga toog wax ko dërëm bi fan nga ko jël ak fan nga ko dugal uh-huh. mbaa ñu rukk la ba nga mel na dege ñu uh-huh. bari bay bonu waaj Oh, macha allah hmm. kon bu yeboo ñu waaj waaye ñun ñii tamit ñuul ñuul ñii ñun tamit kon tonton gars yi gars daal xale yu xees lañ bëgg ñu ñuul ñun oh. waxuñu ci dara kon waaye ñun ñu ngi gàdde suñu ñuulaay rek <laughs> soxna Ndeya lan ngay tàggatoo. maa ngi tàggatoo di kontaan waa ci tonton gars li mu wax yëpp am na solo. moom mm-hmm. xam naa xale bu geex xale bu xees la bëgg. Mm-hmm. moo tax mu wax loolu xees la bëgg ay ñu ñu di leen rappelé waat suñu festival bi incha allah ñëw na ba pare presque. bi mm-hmm. à part di démarrer à partir du ba 12 euh, novembre incha allah. ñu ngi ciy woo ñëpp di leen wax ngeen ñëw teewe incha allah solo loolu. ñu ngi leen koy lancé di leen ko fàttaliwaat euh, population yëpp ñu ngi leen ñu ngi leen koy ñu ngi koy wax. waaw maam Marème bu loolu weesoo maa ngi lay maa ngi lay jaajëfal di jaajëfal tonton Babacar. bi mhm. di jaajëfal aussi tonton Matar Sakho mhm. mi may àndal ci kii bi reportage yi mhm. jaajëfal Babacar bi ci régie bi di nuyu ñëpp di ziar ñëpp di jaajëfal sama tata boobu di ma seetaan moom mi ngi ba Thiès maanaam Mbayang ak sama sœur bi nekk aussi daaru musi moom Fatima di jaar aussi sama sama belle sœur bi nga xamante ni heure bu ma soloo dama koy sonal mm-hmm. moo ñëw di jàpp ci sañse bi kinne noonu laa mm-hmm. koy sonalee day wax daal doo tudd ma ni ko tey moom ne dama lay mm-hmm. ni yaa ngi toog bi ñu seetaan parce que émission bi am na solo di ko seetaan day commencé sax ñu wala téléphone naan la que sa émission bi commencé na kon loolu am na solo loolu ñu leen di jox di ñu leen di jox di daje beneen dimanche incha allah ah, merci beaucoup Ndaya ñu lay jaajëfal bu baax a baax di ñaan rek yàlla nañu yàlla defal jàmm ñuy fekkee ay dimanche yu baree bari ci kàttanu yàlla ak mbaaxam tonton Ngari lan ngay tàggatoo. waaw man day sama tàggatoo muy gërëm yàlla saabu ne. Mhm. Ah, bu ko neexoon def nu la nen. Mhm. ñu am xar wala nag. waaye mhm. nit la ñu def boole ci ñun tàgg. kon nit di war a sant yàlla bari na. mu laa wax sànq. ñu bari dañ di feete canne blanche. ñi ci ëpp gisuñu pourtant ñu ngi am mbégte di woy di fecc seen kilifa gi euh, dama fàtte turam yàlla na ko yàlla defal gudd fan ba mu génn yëkkati un million may leen ko mhm, ndeysaan euh, boole ci benn autorité teewu fa teguñu ko fenn mhm. te loola mu man la la la njàccaar bi gaare ci oto bu ko mhm. dàq la gaare ñu feetu seen feetu di musique Alé Dieng maa ngi koy nuyu moom frère Alé. Mhm. fi la takkee jabar. Mhm. moom orchestre am ñoo xam ni seen maxalañ ji guitare. Mhm. tëgg lu seen lu njaacaar mu tëdd. ndeysaan nit a war a gëm yàlla. macha allah ba noppi ngi ñoom. ñun Penda. ñoom Daaro. di di di bëgg. c'est-à-dire da ngay da ngay dem ba nga xeeb sa bopp yow. waaw yàlla def teg nattu ni nga ko waxee. ñi ngi bëggee ñoom leen yàlla teg. yow yàlla tegula ci benn natt ci yooyu nga suba gu rekk rek ngay ngay ñaxtu réew mi neexul réew mi amul xaalis dugg nañ ci gaal yi waaw waaw Macky Sall daa war a wàcc nangam te bis bu ne nga jënd ceeb daal becc li ma gën a soof mooy loolu bis bu ne nga ne naar jaay ma ceeb delloo ma bis bu ne nga dawal oto def ci essence ak gasoil bis bu ne nga ñawloo te ñu réew mi neexul réew mi neex na xeexunu xuloowunu te yàlla mataleel na la lépp macha allah kon loolu nañ bàyyi nit ñu dellu sant yàlla parce que loolooy mbégum yàlla yàlla bëgg gi mooy nga ko sant yow yow li nga nu defal sant nanu la am réew yoo xam ci guerre la ñuy xëy suba ak ngoon di dee rek yow boo déggee ko faatu fi sax da ngay yéemu ñëpp ay waay diw daa daa wàcc ndeysaan ay waaye waay nga xam ñoo xam bu ñu xëy cinquante la ñuy tëral jullee ñëpp suulandoo benn ngoon te pareeguñu bu subaa ñu defaat ko te te dañuy julli militaires yoo xam ñu ngi ci guerre buñ déggee nodd dañuy taxaw sargent jiitu gars yi taxaw julli bu pare ñeneen diruñu garde ñooña yow ngay dox nii lépp matt yi lànk nga ne yàlla yaay bóor pour lan ngeen yaakaar yàlla daf ñu bàyyi ci noonu yàlla daf ñoo teg nattu nañ ko gëm coow li yëpp nattu la tukki ci gaal yeeg waltu waltu nattu dong la ku bàyyi salaire dem ci gaal gaal gi quatre cent mille ngay fay juróom-ñetti fukki junni am kenn du la yóbbu gratuitement foo jële quatre cent mille ñaata 400000 la dem nga ñu réew mi doxal yow nga lijjanti cent 400 420000 mooy paasu Espagne nga fay 400000 ci gaal nga ne amoo xaalis nattu la bu ñëw sunu kaw parce que noo gërëmul yàlla dañ koo xalab nan sant yàlla sama borom kon loolu misaal la bu ma jox sama bopp di ko jox ñëpp bi ci des mooy euh, di gërëm ay nit sunu benn doyen bu tudd Modou Gueye Samb. soxnaam sanc bi la dëkk ndeysaan day suivre émission bi chaque dañ koy dañoo da Dakar keroog Pikine ci biir salle ci mairie bi ndeysaan ñu waxtaan fu lu yàgg ba mu jo téléphoné soxna si jox ma ko muñ sanc bi la dëkk et cetera muy góor gu am xam-xam euh, day def poésie ci lu bari ay taalif moo duggee sàmb yàlla ko yàlla defal jàmm góor gi ñu lay ziar bu baax doyen ak soxna seeg xale yi di nuyu baaxit it euh, Moustapha Mbari Mbari gàlle Allah Euh, tur woowu bu ko nit ñi xamoon man defe naa ni waa ndax warul ñun suba bu ñu dem fa kër yàlla kër ngaari ngay jëm wala kër faatiment kër yàlla mi ngi fii boo paasee ngir kër kër yàlla jarta dem lu waaye di wuti am na kër yàlla kër yàlla nga lay wër nag moo tudd mbari gàlle àlla ci gàmm gi lañ fa dem ak Babacar mii ak lera TV jël gàmm ga nu fasante ñoom kóllëre ku di wax Moustapha saw di sunu sunu frère ku yàlla baaxee ku yàlla may ci xam-xam ak lépp mais ku yàlla dalal moom la wax sànq ci ku ñàkk ndamu boo ko gisee da nga ni ah waa est-ce que parce que sëriñ si bëgg ñun mooy ki sol dara yu mag yi yor course di dégg nga maam di mm, ñu ko mais gis nga ñu toog kalu ña dañuy wax ki yoru amul xam-xam ñooñu nag ñoo am xam-xam parce que mooy li nga wax li bëy di lekk bay mbëkk nit ñi xaboon wan na ko ni pat ak moom. kon Moustapha ñu ngi koy nuyu baax Moustapha Sow bu Mbari moom lenn ko soxal mooy nit ñi xam Mbari la fa yàlla def nit ñi mën dem Mbari gàlle ñaan lu fa yàlla yàlla may leen li man de dinaa fa dem te kuy demit ma kayit bu ma gisee kuy dem nga yóbbaale ma mm-hmm. ñu ngi lay nuyu dëkk bu am solo Mbari gàlle yàlla ko yàlla defal jàmm euh, di nuyu sama rakk Xaadim Jaw mu am soxna su baax suñu xujjal daf naan nànd ci bëgg ataaya su ma ñëwee xaar dugg xuj a ataayal ngaari daa dem mu tegal ma ataaya eh, jabar ju baax jëkkër ju baax yal na yàlla gën leen a baax yàlla bul rëccu seen ànd du ma su ma jaaxlee fa dem toog xuj di ku baax day ñëw jël temps toog di waxtaan nag ba nga giif yow mu dellu ci téem jëkkëram it lu may monté lu parfois ci rajo da koy monté benn yoon rapide xaadim seen yaay moo baaxoon seen papa baax ñu ñëw jël mbaax nga ñoo ak saam ak fallu ak euh, maam jaar ak xale yi ci kër yi yal yàlla sàmm leen ndax fooy waxtaanee bis bu ne bo léeg booy waxtaan sax tuddaal leen ci daa da caa baax. du nuyu nag waa Fescar gépp Fescar ñoom Ba mbay ndaa Ndak ma Massamba Gueye muy compteur yi Sénégal ma bokk ca euh, ñu am taxawaay boo xam ñoom mënuñu fas yéene indi jeudi incha allah fii Louga pour teewe festival bi def ko festival compte. comme ni ñu ko waxee rek képp koo xam ni waxoon nañu lettre appui bi du du xaalis si poosu ngaari de dañoo bëgg a dekkal cosaan bañ mu rëcc nu ndax ku sa cosaan rëcc sa bopp rëcc ku sa bopp rëcc dootoo doon kenn léegi nag ñun loolu lañ bañ mu rëcc ñu bëgg koo conserver amul paas waaye nag ku déplacé ay nit dëkk ak dëkk war leen a jox añ reeral leen dëkkal leen te bu ne demit war am paas bu nu yóbbu loolu lañ wax ne buñ ko amoon noonu kese barke Cheikh Ahmadou Bamba du laaj kenn dërëm waaye nag kilifa yi def ci parce que ma wax ak na waaye mënuma ngaari démb rek wala tey suba mënuma suñu société daal na jàppale mais ngaari war nga wax dëgg war nga bañ am problème Louga ma ne ko déet waaye mënuma fa Aminata Mbengue Xaal dëkk troisième personnalité de l' état Moustapha Diop ministre de l' industrie Mamour Diallo directeur général ngaari maa mooma ñett ñooñu bu leen neexee Louga organisé te wallahi kilifa la ma ne ko ma croisé samay droit sant yàlla fa buñ defee baax na buñ deful ñeneen def di Babacar Sarr di wax ku dëkk ñu def ku dikkul ñu def ndax ñii def sax amuñu fi bàjjan tubaab yaay def kon li mu wax dëgg la waaye ku ci nekkit wane la bataaxal kaay jàpp ci ñu dalal gan yi indiwaat cosaan wane ko tëj dem ñibbi kon nag loolu ñu ngi ñaan yàlla mu may nu fekke ko kenn ku nekk lu ci bu baax a baax kon nag di ànd ak ngërëm ak sant di nuyu waa Leral TV commencé ko ca le PDG Dame Dieng ñëpp. ba ci ki ci suuf parce que fa la ñu nekk di ca déggee ak ñoom kon ñu ngi leen di sant bu baax ci li bu def génne média pour ñëpp ci jariñu gërëm waa FESFOC aussi boo baax a baax gërëm la directrice centre culturel wax dëgg yàlla moom it euh, mi ngi jàpp ci festival bi nii ci lettre yee ci yëf yi fi ni wàccagul ma nga ca kon yàlla ko yàlla defal jàmm ak tawféex tubaarkàlla macha allah loolu du ñàkk kàddu yoo xam mën nañ koo yëkkati di sant ñëpp nag waaye may dellu nuyu sama président de la république Macky Sall kóllëre ga ma amoon ci moom tey la gën a dëgër suba lay gën a dëgër parce que duma ma jàpp bàyyi euh, sama président la doontul président Sénégal sama président la parce que président lay dégg ba ni mu sàngoo suuf parce que man doo def lu baax ma ne yow a ah, ëllëg man nga gën ma non non non du ma façon yooyu tey laa ko gën a gërëm mook jabaram Marème Faye Sall Marème Faye fu nekk fekk na ma fa ku ma indi mu feebar jàppale na ko kon yal yàlla dafa leen jàmm incha bu jugee présidence Dakar Sénégal bu ko gën a kawe bu mu tiit bu mu ragal barke alxuraan dénk nañ ko yàlla nañ ko dénk ñëpp ki gën ci réew mi nag ci élection yi yàlla ko fi yàlla teg fi gën rek yàlla ko kon nag euh, foofu la ñuy gàttale suñu kàddu di gërëm Mame Marème bu baax di la sant gërëm Ndeya di ko ziar bu baax Ndey Ka gërëm nañ ko di ko gërëm bu baax Babacar di ko ziar bu baax yàlla yàlla mottali liggéey bi boo ko ne fa nga jëm rek nga yàgg teg fa loxo muy li gën bi jaay rasulillah ñu festival bi tamit ñu ngi koy préparé bu baax di ñaan yàlla nañu yàlla may lu kawe suñu njortu waaw date bi la kañ la sax le 9 ak le 12 waaw la 9 ba le 12 waaw dañ fi defaa émission te jaar la ko ci man incha allah ñu doy doy waar waaw bu soobee yàlla neuf ba la douze ñu ngeen gaa yi ngeen gaaw ci yëngu ci te ngeen xam ne dañuy dekkalaat suñu cosaan dañuy dekkalaat suñu aada ndax nee nañ ku wàcc sa ànd ànd boo dem fekk ca boroom mu toog pour que réew ñu fowuñu wane wuñu suñu bopp dañuy wane li nga xam ne moom la fi suñuy maam bàyyi ñu di ko dekkalaat kon ñu ngi ciy woo ñëpp waa àdduna yëpp li ñaan yàlla nañ ko defee ci jàmm ak salaam saay saay na la yàlla nelaw loo ba ñu def ko ci jàmm ak salaam ba mu jeex ci jàmm ak salaam may ziyaare ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di ziyaare sëñ Abbas Mbacke bu daaru Moussi maa ngi koy ziyaare di rakk sëñ Modou bu baax borom daaru maa ngi bu baax a baax a baax di ziyaare képp koo xamante ne yaa ngi ci diwaan daaru Moussi muy Touba ak képp ku nekk àdduna rek ziyaar nañ la ñaanal la jàmm di ziyaare waa are Mbour ca Dakar ñoom du fa ñu nekk ñu ngi leen di ñaanal jàmm di ziyaare sama waa koñ waa nouveliser kenn du ñoom ci mim réew baax yaru gën riche yàlla yàlla def jàmm ci ñoom bu baax a baax a baax ziyaara ñëpp bàyyuma kenn tonton Ngari maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal ndey yaa ndey ka maa ngi lay ziyaar bu baax a baax tonton Matar Sakho maa ngi lay ziyaar bu baax a baax ak Babacar mi nga xam ne moo nekk ci réseau bi di wax Ablaye suñu jarbaar boobu nam nañ ko borom ataaya ju neex ji ñu ngi ziyaar ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm yàlla na yàlla may ñëpp jàmm yàlla na yàlla defal ñëpp jàmm ci barke Seydina Muhammad di leen jox rendez-vous ba dimanche